nag jigéen soxna ak soxla kilifa ak na fàng rawatina loo xamante ni mooy actualité ñu dippee ko top lañ leen fas yéene indi fii ci Dakar net ma ciy xamante ni saa suñu ko waxee xel yépp dem ci soxna jaare ngir ni mu doon la euh, comme ni ko sama frère Davida waxee sa se passe ici sur Dakar Net les samedis euh, ñu leen di ñëwal indi leen xibaar yi nga xamante ne ni mooy am dans la semaine que ça soit actualité people que ça soit politique bu leen ko mës parce que du yomb sa sera avec mon frère Davida. ci noonu lay demee saa su nekk fii la ci Dakar Net. Salut chers internautes et amis fidèles de Dakar. Euh, point net tey nag dañu am mbégte ak contentement comme liñ leen ko waxee woon ah, euh, toogandoog suñu frère bi nga xamante ne nii mooy Davida ngir euh, mën a ñëw ci li ngeen xamante ne nii mooy seen rubrique euh, nañ ci wax tey nag duñu def leen lu dul wax ci li nga xamante ne nii jot na fi xew muy état d'urgence bi fii Macky Sall wàcce ak couvre-feu bi ñu wax ci conséquences yi ak leneen ak leneen li nga xamante ne nii. am na ci biir du ñu def naka lu dul jàkkaarloo ci ak sama frère bi Davida ngir ñu mën a wax ci loolu Davida maa ngi lay nuyu. Soxna Diarry maa ngi lay ziar bu baax baax di nuyu aussi ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñuy internet bu Dakar net saa su ne dañuy am mbégte ak kontaante euh, saa su nekk lépp loo xamante ni rek mooy di actualité ñu ànd ci ak yéen comme ni mu ko waxee ci biir introduction lii di état d'urgence bi nga xamante ni président Macky Sall daal dina koy décréter. am nag ñu gis ñu seen bopp am ñoo xam te gis ñu seen bopp lépp nag nee nañ mbas mi la loolu la ñu war a faram-fàccee fii ci seen plateau Dakar Net. ok Davida ñu gis nii li nga xamante ne nii mooy couvre-feu am na fi euh, le président Macky Sall décrété ko état d'urgence euh, lan nga ci xalaat. waaw jërëjëf ci laaj bi xanaa lu ñu si gis rek mooy li ko ñëpp gisandoo ndax boo nee état d'urgence rek mooy xew-xew bi nga xamante ni euh, dafa bàyyeekoo ci kaw ti bu ñu nee ci kaw mooy ki nga xamante ni mooy première institution bu Sénégal muy président Macky Sall dafa gis ni kat li nga xamante ni moom moo di coronavirus bi di Covid 19 bi. dafa am cas yi ci euh, yenn côté yoo xamante ne da cee gën a yokku ci côté yooyu nag bii paa dafa doon lu particulier ndaxte Thiès la ak Ndakaaru gis nañ ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy experts yi ñi nga xamante ni seen xel ak seen xalaat mooy di expertiser rawatina nag cas yi fu mu gën a bare rek loolu moo tax tey ji état d'urgence bi bokkul ak yeneen yi nga xamante ni mooy couvre-feu fi jotoon na jaar bii ñu gis nag tey Thiès la ak Ndakaaru am ñu mu neex am ñoo xamante ni neexu leen ci kaw loolu jaar yi am na loo xamante ne jot nañu ko gis.

ba 5 heures du matin voire 6 heures du matin moom lay état d'urgence bi di durer loolu am ñoo xamante ni wax dëgg yàlla dañu ko doon nakaaroo. Mm-hmm. Eh, ci biir nakaar googu nag bari woon na ci aussi ay xale yoo xamante ni génnoon nañ mën nañu Sénégal gi yëpp la mën nañu Dakar gi yëpp la mais aussi mun nañu wax ni si raison yi aussi ñu ci bari muy xale yi génnoon nañ taarip na lakk lakki bus di toji bus loolu lépp nag je pense que président la République dogal bi mu jël muy 21 heures bi. ba ci cinq heures du matin voire six bi moo leen arrangé wul woon tey defe naa loolu soxna jaar yi mhm. mënoon ñu xoolaat neneen li nga xamante ni moo gënoon a yomb ci ci tëj nit ñi vingt une heures moo gënoon a yomb ci di arrêté loo nit ñi ci heure boo xamante ni du woon seen heure tëdd man li ma ciy gën a jaaxal mhm. jamono ji mhm. mooy da ngay tëdd vingt et une heures vingt et une heures da dugg sa biir kër mais entre vingt et une heures ba zéro heure da ngay foog ni cinq heures du matin moo jot ndax koo xamante ni dafa daan taamu vingt trois heures mu nelaw nga bëgg ko dugal vingt une ne ko tëddil déjà kooku yaa ngi koy mettre ay stress gis naa ci koo xamante ni sama grand la maa ngi koy nuyu feebar la def feebar ndax moom tàmmul ñu koy tëj vingt une heures commerçant bu mag la mais keroot man maa ko assisté kon cela ni euh, vingt bi nga xamante ne ni euh, moom la ñuy tëdd am na ñoo xamante ne ni am na ay conséquences ci ñoom. conséquence yi weesuwul kii nga xamante ni dafa nekk en état de grossesse récemment gis nañ ko ci benn euh, hôpital fii. soxna soosu. ci ci mbedd mi mën naa ni foofu la wasinee te bu fekkoon ni tey jii couvre-feu boobu ñu wax ni vingt une heure la. mënuñu ko woon a def vingt une heures mënoon na ko yóbbu ba zéro heure mënoon nañ ko yóbbu ba vingt trois heures mais vingt une heures nga xamante ni nit ñi demoon liggéey ji sax wàcc gu ñu heure boobu kon ki nga xamante ni bi ñu koy jël di ko évacuer muy génn këram balaa moo yegg ci hôpital bi fa la wasinee. Euh, mais David daal yan yan yan jàngat nga am ci la fait ñu yemale couvre-feu bi. Euh, Dakar ak Thiès parce que ñoo ngi naan Kaolack moo ëppale euh, Thiès euh, ay ay ay cas moo ëpple dakaar ay cas mais ñu yemale ko ci diggante cees ak dakaar loolu yan yan jàngat nga. donc man moom foofu wax dëgg yàlla daf ma xaw a jaaxal ndax bu fekkee ne dañu ne kaa am na Sénégal waxuñu Thiès waxuñu dakaar kaa am na Sénégal. Mhm. donc man si sama xalaat bu gàtt ak sama analyse bi nga xamante ne am naa ko di xalaatee ni ñëpp ëpp ma fi xel kenn. Mhm. waaye chacun aussi à sa manière de penser man je pense que ni sama pensée. Mhm. ça ça ça m'engage moi-même. mooy que li tax ñu jël cees parce que ki fi ki fi wuutu Mimi Touré la muy Idrissa Seck Thiès la dëkk. Mm-hmm. donc bu ma gisee ñu jël ndakaaru kii jël ndakaaru moom mooy Macky Sall ñoom ay alliés lañ actuellement rejoindre nañ ko nekk nañ je pense que kon am na benn politique boo xamante ni Idrissa Seck mi ngi koy nas ak président Macky sàll mm-hmm. le fait muy jël Thiès di koy ciblé ak ak ndakaaru ñaar yooyu rek man sama xel daa tey foofu. Mm-hmm. xëy na am na lu ñu maligance ñoom ñaax ba jël choix wu Thiès politiser ko jël ndakaaru bu ko politiser pourquoi pas pourquoi yeneen yi nga xamante ne c'est des quartiers périphériques yoo xamante ne nekk nañ hors Dakar bu fekkee ni kaa la ñu wax mm. cas c'est partout au Sénégal rawatina nag fi nga xamante ni tamit mooy les les régions yu gën a plus reculées ci ci Sénégal mm-hmm. kon man le choix wu Thiès ak Ndakaaru dafa tee sama xel mm-hmm. doo ma ne wàllum complot bi nga xamante ne dañ koy faral di wax ci diggante Idrissa Seck mm-hmm. ak président Macky Sall lii da koy firndeel ndax boo fi jëlee Mimi indi fi Idi ku xam Mimi xam ni ko musta neexoo ak sa Seck mhm. su ñu ñëwee jël sa Seck teg ko ci kaw mi Mimi mhm. jox ko post bu rëy te ku xam Idrissa Seck xam ni moom waa Thiès la nga bëgg a jël Thiès ak Ndakaaru tëj leen bloqué leen ana ban politique président Macky Sall moom la bëgg a def ci diwaanu Thiès mhm. ban politique sa sekk moom la war a def fi nga xamante ni moom mooy moom mooy ak ak Macky Sall loolu moom moo téye sama xel soit wu daal su ma sañoon boo ne da ngay confiner ñëpp boole régions yi nekk biir Sénégal yëpp nga confiner leen mais pas Thiès ak Dakaaru kese ndaxte am na ci yeneen i régions yoo xamante ni cas yi gën na faa bari. mais tamit euh, couvre euh, euh, couvre-feu bi pour douze jours la woon donc mm-hmm. cela veut dire que ni dimanche bi la couvre-feu bi war a jeex. Mm-hmm. donc peut-être que ni après douze jours yi dafay def étendre territoire bi wala dafay arrêter yow loolu lan nga ci xalaat dafay arrêter wala dafay def étendre territoire bi. jaari xalaat bi lu gàtt la mun nga ko xalaat. Mm-hmm. comme mën naa ko xalaat parce que déjà dañuy revenir à tuuti ci vingt et une heures bi. six heures du bi. déjà vingt et une heures six heures du matin xale bu waroon a yow cinq heures du matin pour se préparer à l'école mm-hmm. kooku déjà yàq ngay nalaw yaay waajuram yi mm-hmm. yàq seeni nalaw mooy koo xamante ni dafa waroon a yow quatre heures du matin pour dem jaay ji jën kooku déjà empêché nga ko nee naa ko nee ko dootoo tëddati dootoo yeewati quatre heures léegi da ngay bàyyi ba cinq heures nangam nga yow mu bëgg a préparer doomam préparer boppam préparer kañ lay génn ci këram kon déjà enragé wu ko. enragé wu ñu ñun ñii enragé wu la yow mi may seetaan. li nga xamante ni aussi moom mooy problème bi mooy njariñ couvre-feu bi man gisuma ko. yow boo teree nit ñi ñu dox guddi gi suba gi bu ñu xëyee ñu dugg ci bus yi bokk ko. nga tere nit ñi vingt et une ñu ñu circuler bu ñu xëyee ñoom ñoo nekk ci tataay yi. ñoom ñoo nekk ci marché bi te nga ne léegi kon virus bi man dama jàpp ni kon suñu virus bi ñu naan virus le virus vampire la vampire <laughs> parce que vampire laay gis guddi muy dox vampire man gisuma virus bi dox bëccëg de. je pense que ni bu ñu nee virus rek ne cas yi am na fi cas yi muy guddi géeg bëccëg bi kon war nañoo jàpp ni feebar baa ngi fi waxuñu amul. ñun waxuñu amul de mais nag fi ñu fi ñu ko bëgg a teg moo fa tegawul ndaxte loo xamante ni guddi gi lay dox mën nañ ko dippee ab vampire. Mm-hmm. bëccëg bi day dem yoonam léegi nag ki nga xamante ni da nga ko tere woon guddi gi doo dox. nga mu xëy suba dugg ci bis bi xëy suba nekk ci marché bi yow kat président de la république yaa xëy si yow yaa ne woon vivons avec le virus yow yaa ne woon élèves yi bi ñuy démarrer seen études yi yaa ne leen nii ñaanal naa leen ci yàlla nga ngeen démarrer seen année comme démarrage boobu nga xamante ni yow président de la république yaa yëkkati woon loolu ne vivons avec le virus bàyyil nit ñi ñu takk seeni i masque toog ci seen bureau yi bàyyil nit ñi ñu takk seen masque nekk ci marché yi bàyyil nit takk seen i masque nekk ci feneen fi nga xamante ni mun nañ fa daan seen doole ndaxte li gën a doy waar mooy jaari vingt une bi nga xamante ni ki doon jaay cereem vingt une la waroon a teg célibataire yi ñëw di jënd ku dul célibataire ñëw di jënd kooku xañ nga ko ko ki nga xamante ni vingt une heure boobu la doon jaay mais xoolal jaaykatu petit cola bi xoolal keneen ak keneen keneen yow lépp nga xañ leen ko ba ci visile bi nga xamante ni cinquante mille francs bañ koy fay ci société am ko koy xañ ndaxte kat fi nga xamante ni état d'urgence foofu nga ko décréter arrangé wu ko ndax moom bu boobaa da koy naan demal nga tëdd ji est-ce que tey jii société bi nga xamante ni ñu ngi seen biir kër yi toog parce que dañ leen wàcce nee nañ fu 21 heures jotee bi nga xamante ni moom la ñu waroon a garder amatuñu droit garder ko ndaxte dañ leen fiy dégager parce que nee nañ am na fi sécurité totale ndax y a une différence entre la police et la gendarmerie ak ki nga xamante mais agent agent agent la y a une énorme différence kii civil la kii du civil moo tax dañ leen di delloo léegi nag agence ba leen recruter woon da leen di teg fële mm-hmm. léegi loolu moom mooy conséquence yi mm-hmm. Macky Sall président de la République yow yaa ne vivons avec le virus bàyyil nit ñi ñu takk seeni masque dem liggéeyi. mais David daa ah, est-ce que nit yi tamit bu ñu leen bàyyee dinañ leen takk seen masque def li nga xamante ne nii tamit moom lañ leen sant. mais ku jël armée bu toll nii yëpp wàcce ko ci réew mi armée la wàcc armée wàccewul <laughs> kii de armée le président de la wàcce man ñi may gis ci tali bi actuellement. Mhm. mooy ñi nga xamante ni bu fête de l'indépendance daal di commencer. amoon ñoom laa doon gis ñuy wàcc mhm. mooy les commando mooy ñu ma fay gis le fantassins et autres ñoom ñoo doon wàcc ci période indépendance bi mais actuellement foo romb ay commando lañ fa def dama biir dakaar ay commando laa la wax de ñoo xamante ni dëkk bi daa waroon a tàkk tàng ñu ah. jël leen tey ñooñu la ñuy jël tiital ñi nga xamante ni ñoom ñoo waroon aar seen sécurité parce que nit yi ñu ngi naan sax euh, mesure yi mu ci jël euh, nii bu ko jëloon peut-être euh, ci avant couvre-feu bi nit ñi dinañ gën a mën a am dinañ gën a nekk en sécurité sécurité parce Euh, bu couvre-feu amul la nit ñi di gën a nekk en danger. Mhm. ñu ne moment bi ñu ñuy agressé nit ñi moment bi ñu attaqué nit ñi ñu leen di rey ñu ñu leen di nangu seen bagage moment boobu ñii nga xamante ne nii ñu leen di gis ci couvre-feu bi ñooñu fan lañ nekkoon. en fait nit ñi loolu la ñuy loolu la ñuy. loolu la ñuy posé la question mais mais loolu dafa yomb xam nga tey yow bu fekkee ne da ngaa jiite ba ba noppi jalgati yow da ngaa jiite jalgati mais mais mais récemment la ñu fi gis ah. almadi fii. Mhm. plus de quarante personnes yoo xamante ni seen i doom seen i seen i ay doomu doomu ñi ñi ñi naan ñun ñii di baadoolo yi ay doomu Richard la. Mhm. ñii seen papa yi ñu ngi ñu ngi ñu ay ambassade lañ ñii seen i yi ay haut gradé lañu. Mhm. ñooñu ñooy organiser ay piscine party. ñoo xamante ni ñoom ñoo waroon a censé joxe un bon exemple. certaines autorités qui n'ont aucune aucune personnalité ni dignité. qui veulent tout temps la visibilité et que na ñoom illimité. amuñu ko. ndax illimité boo ko amul xam nga mooy lan mooy ngay def loo xamante duñ la ci naw déjà mm. déjà li ma ci gën a jaaxal mm-hmm. ma wax la ko ay organisation yoo xamante ni dañ koy def discrètement mm-hmm. ñoom la ñuy def di organiser ay soirée ñii dañuy organiser ay mariage gis nañ ko fii mm-hmm. ci moment boo xamante ne baadoolo bi xañ nga ko dem marché ba. mais est-ce que ñoom moment bi ñuy organiser euh, soirée yooyu est-ce que tamit seen ay parents nekk euh, yëg nañ ko parce que ñoo ngi gis le cas Euh, Iba Diallo. Mhm. Mm, ci couvre bee njëkk. le cas de Dame Amar ba ñu ci daam Amar am ñeneen ñoo xamante ne arrêté nañ ci. Mhm. ñu dégg que ni euh, ñoom bàyyi nañ leen. Mhm. Euh, ba fi mu toll ni sénégalais yi ñu ngi révolté wu ci loolu noonu xam naa loolu dañ ciy ñëwaat. non non dinañ ci cus dinañ ci cos sax balaa ñuy avancer parce que yow mënoo li tax li tax ñu jàpp leen ñoom ñooñu nga xamante ni seeni bàyyi am nañ alal. ku ci mel ne amaar Amar. ak ñoom Iba ñoo ñooñu. xëy na lu ma am mordom moo tax. lu ma am décédé foofu. bu doon femme bi décédé wul du yëg ci kaw même bu leen fa police fekkee du dem ci kaw mais nag bi ñu ñëm ndox bi ñu xamee ni que police ci boppam dafa am ñoo xamante da leen a jox attestation bi pour ko ñu jàll parce que nit ki bu amee benn permis de de de circuler kon c'est-à-dire dafa am ku ko ko jox ñan ñoo leen ko joxoon ñan ñoo organiser woon li nga xam te mooy appartement bi kon dafa am décédé foofu décès boobu am fa nag moo tax ñu jël teg leen ci yoon kon man bettuma bettuma ñu jekk wacaag ñu ne libéré nañ daam amaar bettuma ndax bu fekkoon ni dañ ko def yemale leen comme baadoola bi nga xamante ne benn join nga ko jëlee tëj ko mhm. bu ñu ko defoon ci ki nga xamante ne ginaar la sàcc ñu tëj ko bu ñu ko defoon bu ñu ko defoon bu ñu ko defoon ñaata nit ñoo nekk biir rëbës yoo xamante ni benn juin lañ leen jàppee tey jii jugé guñ leen mhm. ñaata nit ñoo sàcc xar ñu tëj leen pourtant am na ñoo xamante ni ñoo ngi fii di dox mhm. def costume takk seen cravate di yor seeni xaamaar di wër ñoo xamante ni jàppe nañ leen ay drogue mujjul fenn ñu jàppe leen mujj ñu fenn ñu jàppe ay attentat à la ñu fenn ñu jàppe leen jàppe leen jàppe leen mujj ñu fenn parce que lan la ay nombre tànk la ñu am mais li may wax lenn lenn la mooy loo am nombre tànk am nombre tànk bisa ngi ci bisi yow procureur bés a ci bis yi yow président la république yow mi nga xamante ni ministre nga wala nga yor ndomba tànk boo mën a yor jàppal ni bés a ngi ci bis yi mbër ma ngay dajal mm-hmm. mbër ma ngay dajal sa famille moo lay indi famille bi moo lay sang mm-hmm. famille bi moom moo lay takk génne sa jees njëre sa gadi laa sànni ko jël perkaal bi yeew la ba nga dëgër jël parfum bu gën a naqari ci parfum yi saañ say nopp jël sa bakkan yi saañ ko yóbbu la nag ba nga xamante ni mooy sa këru dëgg boobu nag mooy kër gi R plus yi du dara de R moyen R moom may bàmmeel loolu mooy dëgg gi ak koo mën a doon ci àdduna maytul bés boobu xamal ñu que malaka yi la suñu borom booleel tey du la booleeg ñoom suba de. Mhm. relève la ñii bu ñu ñëwee tey loo ci deful perte nga ko ndax ñeneen ñu ñëw yàkkamti bind kon yow mii di procureur la ngay def na ci xool yàlla yow mii di président de la république na la leer ni la ngay def na ci xool yàlla baadoole yi nga xamante ni ñu ngi sonn du ñu lekk du ñu naan ngeen di jël alal askan bi di koy café ak di foyee na ngeen ko ba te ñi nga xamante ni ñoo fi nekk nañ leen yemale ak ñi nga xamante ni ñoom seen loxo jotu seen ginnaaw su ko defee bu boobaa ñu jàpp ni démocratie am na ñu jàpp ni liberté d'expression bu ñuy wax ni Sénégal fii dëkkum teranga la am na fi mais fekk loolu doxalewuñu ko jaar yi du du neex euh, mais tamit ñu gis ni euh, couvre bi bi mu amee gis nañ ci dégâts yu bari gis mhm. nañ ci dégâts yu bari euh, jeunes yi yàq nañ ci am na ay euh, suñu nay naataango yoo xamante ne nii toj nañ seen ay oto am na ay oto policier yoo xamante ne toj nañ ko ah euh, am na ci sax koo xamante ne yoonam nekk ci mhm. ñu taal fi otoom mhm. euh, mais est-ce que yaakaar nga ni loolu normal na non loolu moom dañu situer responsabilité yi ci ci ñett angle la mhm. parent bi dañ koy situer responsabilité bi xale bi ñu conscientiser ko mais ñi nga xamante ni tamit ñoo tax xale yi révolté muy om de tenue yi nga xamante ni récemment gis nañ benn benn pick gendarmerie boo xamante ni par chance la xale bi rëccee. Mhm. mais nag nga fa naroon na koñi xale bi. rey ko ci mur bi. Mhm. yaraax la xewee. Mhm. ci ñoo xamante ni yaa waroon a veiller seen sécurité ci ñi nga xamante ni yaa leen waroon a aar yow nga jël oto ak oto nu mu diisee nga am benn intention wu mbëkk xale bi teg ko ci pression ba dootul am rédaction bay xalaat ci mention lu dul nga yóbbee ay famille ci li nga xamante ni mooy pression loolu faaw état jug ci jël ci ay mesures xam ni que ñoom sont pas là pour tuer ils sont pas là donc pour faire du mal mais juste pour protéger ñi nga xamante ni ñoom ñooy xale yi muy benn ba ca tegu mooy certains parents irresponsables mhm. parents yi nga xamante ni ñoom ñu jox xale yi ñu lekk dégager nañ seen responsabilité yow waajur bi xanaa da ngaa fàtte ne xale bi sàmm la mhm. mais dañu nee dañoo décréter vingt une heures mais bu ñu décréter vingt une heures dañoo war a globaliser ñëpp yemale ñëpp xam ni que ndogal gi du du sama papa moo ko jël. du man daa maa ko jël mais ci kaw la jógee. mu neex la ak mu naqari la muy dëgg ak mu dul dëgg parent bi war naa am lan xelu xalaat ni que ci ndogal gi ci moom la jógee mooy buur ngeen bàyyi kook moom te jël seeni doom. sàmm leen ñu nekk ci biir kër yi ba a génn kër yi su ko defee gaz lacrymogène du jub. su ko defee boobu buy toj di jub waaye xoolal xale yi nga xamante ni ndeysaan dañuy yàqal seen bopp ndax bis bi nga jël taal sa yaay mën cee dugg mën na nekk en urgence mu dugg ci bis boobu sa jabar mën na nekk en état de grossesse mu dugg ci bis boobu mais boo tojee bis boobu ban bis moo yóbbu sa jabar ban bis moo yóbbu sa sa sa yaay marché marché poisson ainsi de suite ainsi de suite j'en passe ak ñi nga xamante c'est des étudiants yoo xamante ni ci quartier les plus reculés fa ñu war a jógee ci banlieue bi mais bis yooyu la ñu yaakaar nga xaar bis bi ba mu ñëw nga taal bis bi jël xamante ni ñi ngi koy dooree defar ak kii la faute yéen ñi nga xamante ni demee xale bi moom may avenir u demain ban xale la. Mhm. est-ce que xale buy toj bus la. non xale buy nekk ci réseaux sociaux yi di saaga. du xale yooyu xale yu ñuy wax mooy xale yu conscient xale yoo xamante ni demain ou après demain xam nañu président Macky Sall même li muy def nekkul ci dëgg mais day naan man Davida maa ko fiy jëlee ci lan ci dëgg maa ko fiy jëlee ndax lan dama am maturité. moo tax ma am personnalité ak dignité fekk yaa ngi koy fësal sa visibilité ak égalité illimité yow yaa koy door a dund xale yooyu euh, ñoom la ñuy situer leur euh, responsabilité foofu moom euh, j'en profite pour parler avec hmm, pour que ngeen xam ni yéen li ngeen di yàq ñun ñoo ko moom hmm, bis yi ngeen di toj comme ni ko daa waxee seen ay yaay ñoo ci yéeg yéen yéen ci ciy yéeg hmm. Macky Sall tôt ou tard la muy ren di déwén daf fiy jóge keneen ñëw mais bu fekkee ni da ngeen Hmm? wala ñun li ñu jot am keneen tamit bu ñëwee la même chose noonu lay demee parce que dafay ñëw pour defaraat nañu xam ne ñun li ñu yàq Macky Sall moomu ko ñun ñoo ko moom ñun jeunes yi hmm? li koy faj lenn la yore sa carte électeur bu vote jotee nga voteel kala neex bu dee danga ko fi jëlee nga jëlee ko fi bu dee danga ko fi teg nga tegaat ko fi loolu laa amoon man loo xamante nii dama leen koy wax merci à kon mbégte ñun tamit la ñuy am ak kontante wax dëgg yàlla woon ak yow ci li nga xamante ni moom mooy nañ ci wax aussi comme ni ñu koy waxee bu dee waxtu dafa ëpp. ci man la maa ngi ciy jégalu mais bu fekkee ne aussi lu baax la te nga xamante ne ñun comme ni ñu koy waxee am nañu choix di wax comme ñeneen ñëpp ñu ngi waxee mais nag wax bu nekk saa su ne dañ koy faral di wax que ni si chacun savait ce que chacun disait sur chacun on a tendance à dire que la terre serait terre bien vrai que traverser la ville n'est pas traverser la rivière mais celui qui vivra forcément verra c'était tout simplement votre serviteur Davida fii rek boobu nag ma ci ànd ak ki nga xamante ne mooy jaay ci beneen rubrique kon nag ñoo ko gisandoo comme ni ko sama frère David daa waxee ñu amoon mbégte ak contentement nekkaloo leen ci seen rubrique nañ ci wax nga àndandoo woon ci nag ak sama frère bi nga xamante ne nii moom kenn dootu ko présenté sama gain la muy Davida euh, donc duñ def dara lu dul remercier leen yaakaar ne tamit liñ leen indiloon neex na leen ñu jox dig daje jigéen ak jigéen soxna ak soxla kilifa ak ki fi sas ak ki na fàng rawatina nag lépp loo xamante ni mooy actualité ñu dippee ko top actu moom lañ leen fas yéene indi fii ci Dakar net ma ciy feggoog nag ki nga xamante ni saa su ñu ko waxee xel yépp dem ci soxna jaare ngir ni mu doon la tigresse ak princesse loo waxati ah, ñoo ko déggandoo comme ni ko sama frère Davida waxee ça se passe ici sur Dakar Net les samedis euh, ñu leen di ñëwal indi leen xibaar yi nga xamante ne ni mooy am dans la semaine que ça soit actualité people que bu leen ko mës a parce que du yomb ça sera avec mon frère Davida. ci noonu lay demee saa su nekk fii la ci Dakar Net.